di leen ziar di nuyu waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne moom lañu fekk si fi tey di wax ni tey am nañ mbégte di wuy si woote daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ni dafa nekk daayira boo xam ne bi daa am taxawaay bu rëy rëy rëy bu mu am ci jumaa ji am ko tam ci kër sëriñ Touba di rafetlu tam euh, liggéey bi nga xam ne moom lañuy taxawee maanaam mën nañu wax ne at mu nekk la waaye nag weeru koor da cay raw ndaxte su weeru koor wi duggee ca tàmbali ba ba fa muy jeexee dañuy def ay activités yoo xam bi activités yu am solo la jëm ci wàllu culturel ak ci social tey nag ñu euh, invité ci waa Kër Docteur ma teewal fii hôpital Matlaboul Fawzeyni ak seen personnel ak tam yeneen béréb fajukaay yi fi nekk yëpp muy hôpital Cheikhul Khadim ak hôpital aussi Ndamatou nga xam ne ñoom euh, seen délégation mi ngi nii nekk sama wet ñun ñëpp ñëw fi tey wuy si waa daayira bi Euh, di rafetlu ñëw bu ñu fi ñëw di rafetlu tam collaboration bi nga xam ne am na ci diggante daayira bi ak waa kër docteur yi ndaxte wax nga ko liggéey bi ñuy liggéey dañ koy liggéeyal Serigne Touba te ñun itam suñ Serigne Touba tax ñu nekk fi di liggéey te kenn ku ci nekk mënut dem bàyyi moromam ndaxte ñoom itam dañuy jëf ci taalibe yi ak ci askan wi te loolu ñuy jëf ci askan wi ak ci taalibe yi yaakaar naa wér-gu-yaram ci la bokk ndaxte bala nga mën dara faaw nga wér kon nag ñi nga xam suñu borom dafa dogal. ñu jiite bërëb fajukaay yi fii ci Touba muy médecin yi ak pharmacien yi ak ñëpp ñoo xam ne bii wàllu sant la ñuy liggéey euh, seen taxawaay itam dañ koy ñoom dañ koy yittewoo te itam boobaak léegi yaakaar naa collaboration bu rafet la ndaxte lépp loo xam ne bii ñoom soxla nañ ko ci bërëb yooyu bu ñëwee nañ jéem a def suñu kéemtalaay kattan ba mën a taxawee loolu ba mu ñu am ci li am am ko amee ko ni ñu ko bëggee kon nag tey euh, ci biir weeru koor bi ñu ngi ñaan sama borom euh, gën gën leen dëgëral. ba lépp loo xam ne yéene nañ ko ci yoonu Serigne Touba ñu def ci lu kawe seen njort te yàgg koo def ñu yàgg leen fa fekk te ñëpp kenn ñëpp fekk kenn bañ a manqué suñu borom dimbalu ñu ba ñaan yi fi ñaan ak lépp loo xam ne ñu ko fiy jëlee ci ay xéewal ak ci ay ñaan sama borom nangu ko te wasaare ko ci njaboot gi yëpp ñu ngi sant bu baax leen gërëm jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, docteur Lo jëmbul docteur Diagne jëmbul dina ci sànni kaddu ci turu euh, pharmacien yi euh, yaakaar na moo leen fi teewal dégg ngeen docteur Lo li mu wax mel na ni wax xam itam ak sa wax du sore lool ndax yéen bokk même liggéey bi yéen a bokk même li nga xamante ni mooy kii bi relation boobu ngeen sëq ak waa daara Moukhaddamatoul Khidma ñoom itam daamal ne bu ko defee itam njàngat bi nga am ci culturel beeg ci social beeg yooyu yëpp nga nga wax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci turu pharmacien de la région de Diourbel euh, di nuyu di sant di gërëm waa daayiratul muxaddimatul xidma te euh, Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne mooy suñ bunt ci ñoom euh, yàgg di ci dox suñu diggante ak ñoom di leen sant aussi ci safoo gi ak ci yëg gi ndaxte lu ñu yëkkati rek dinañ wax docteur Thioban ne ko waxal ñu pharmacien yi loolu nag di lu am solo di lu rëy ci ñun ndax ku xam dayoo bi daayira mu tax mu xaddimatul xidma am ci jumaa ji ah, xam ne bu la fi bëggee liggéeyloo Serigne tubaa dina ko yomb te lu mu yëkkati boole la ci kooku mu ngi lay woo mi ngi lay dimbale mu ngi lay jàppale ci liggéeyal Serigne Touba ñu ngi leen ciy sant nag bu baax di leen gërëm te di wax ni ñu ngi leen di jottali aussi cantuk pharmacien bi yëpp. Euh, li ma bëgg a wax nag daanaka docteur loo wax na ko ndax comme ni nga ko waxee rek ñuy wax du soree mënta soree nag ndax euh, ñun ak ñoom aw na complementaire li ñuy wax complémentarité junñu ko ko léegi da ngay tàmbalee ci ñoom jeexale ci ñun donc euh, médecin mënta dem sans pharmacien hôpital mënta mënta dem sans pharmacie pharmacie aussi bu am hôpital amul du du sotti moo tax daal complémentarité la xëy na rek damay sof tuuti ci ay waxam rek Euh, ci culturel bi ak ci social bi euh, ndogu yi tamit xëy na dafa xelam dafa fat ndax li nga bëgg a wax lépp doo ko mën a waxandoo waaye laaj nga ci laaj bu am solo mooy ndax def nañ ab jàngat ci organisation bi ak hygiène bi loolu moom boo duggee ci bërëbu ndogukaay bi rek moo lay njëkk a frappé propreté am na fi macha allah loolu moom li ñuy li tubaab di wax c'est nickel amut lenn luñ ci mën a mën mën a mën a mën a mën a wut baaraam ne lii nangam. organisation bi moom kenn waxu ko ndax ku wax ku gis jumaa ji ni muy doxee ak ni ko daayira bi yore nga xam ne organisation dañ ci am expérience dañ ci am expérience ci tous les domaines nag euh, bi ma njëkkee dugg ci seen infirmerie bi dama dama damaa jaaxle dama ne woon lu mel nii amul ci biir biir jumaay Tuubaa ji alors que ñoom ñoo ko doon doxal di ko nas di ko nocc ba mu mel ni mu mel tey ku fa dugg doo am leen loo ci sikk ndogu bi tamit noonu la boo xoolee ci même ba ci plat yu ñu lay tegal da nga ciy gis équilibre wóor la ne ñii ay borom xam-xam lañ amul excès amul excès parce que dañuy wax ci surtout ci weeru koor nit ñi bu ngeen di lekk da ngeen lekk sans excès ndax ngeen mën a noppal appareil digestif bi mën a diriger waat énergie bi ci yaram bi ci ñu mën a dem defiwaat leneen bu fekkee ne nag da ngay ndogu chargé waat appareil bi ba mu diis daanaka li nga liggéeyoon ci bëccëg gi lépp nga yàq te franchement bi nga bi ñu duggee ci ndogu yi gisuñ fi loolu lu équilibré lañ fi gis ndax euh, ci ci ñam dafa am ñett ba ñeenti classe d'aliments yoo xam ne ñuy wax lipide am li ñuy wax protéide li ñuy wax protéine ak li ñuy wax vitamine boo dikkee xool ndogu li yooyu yëpp dafa équilibré di nga fi gis protéine di nga fi gis euh, glucide di nga fi gis vitamine di nga fi gis minéro te dara ëpp ci donc loolu lu am solo moo lay won ne donc ay boroom xam-xam ñoo ko nose donc vraiment kàddu yi daal xëy na mu gudd mu gàtt daal kàddu cant rek lay doon ak ngërëm di ñaan yàlla nag euh, édition yeneen ak yeneen ak yeneen fekk ñu fi te bis bu at mu ñëw rek gën a yokk gën a gën a gën a gën a neex mi ñu mi ñu weesu